yaram yi daw nañ yaram yi daw nañ yaram yi daw nañ yaram yi daw nañ c'était fort c'était fort tout y était tout tout tout tout macha allah soxna Ndeye Diop macha allah macha allah macha allah macha allah je dis

Sina chambre 16. Sina Mendy chambre 11 détenu Pikine famille bi yëpp sama kàddu di ci bare dama taxaw fii nga Ngagne Demba Touré dafa bokk ci mouvement patriotique yi muy juróom-ñeenti mouvement yoo xam ne dañu ni ñoom tam dañ koy sargal di wax ne nañ ko bàyyi te ñu bàyyi prisonnier yëpp Macky Sall libéré le Sénégal Macky Sall yeewil buum gi nga ci baatu Sénégal waxuñu rek ñi nga tëj waaye dañu bëgg nag ñu nga abal nu dafa doy ak ñeent màggal Daaru Muxti lundi la xañ na leen di ñëw màggal si Abdoulaye Diène bu Pikine Ouest la famille la Abdoulaye Diène bu Pikine Ouest Babacar Ndiaye bu Pikine Mamadou bu dëkk bi Mati Sarnia la famille la Yaya Sagna chambre 12 Modou Sané Mohamed Diba Mohamed Gueye Ousmane Diédiou Mamour Touré Omar Fall chambre 22 waa Rebeuss waa Camp Pénal waa Cap Manuel prison yi ci région yi toute la famille est là ñu woo sama sëriñ Cheikh Omar Diagne bibis sama idole bu bees bi yaa moom questionné quatre jours yi ñu bokk violon deux jours yi ñu bokk cave dañ ma impressionné voilà une fille qui vient me dire Daouda il que instruction yi pour ñu ma sous mandat de dépôt ministère la jógee ma ne ko ah maintien rek quelques minutes après il revient me nañ ma avec le sourire ma ne non mais Macky Sall échoué parce que bu njëkkaan boo waxee kaso nit ñi dañuy kii mais léegi da nga naan kaso gars yi bu ñu génnee am engagement famille yi mi yaakaaroon ne leen brisé ñu tey seen doom yi famille yi gën a am engagement waaye tàccu leen seen bopp waay. wa rahmatullahi jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di am mbégte ñu taxaw si bërëb bii yàgg nañu toog ci biir kaso bi. di seetaan ay manifestation yi ngeen def pour ñun ñu koy xool suñu xool di sedd xam ni xeex bu ñuy xeex naxul saay yéen la ñu war a wax jërëjëf ndax ñun ay weer ñu ngi tëddoon di noppalu di nelaw ak di noos yéen ngeen nekk si terrain bi di xeex bañ ñoo fàtte waaye nag bu ñu taxawee fii sax ba tey ñun nous sommes pas libres suñu liberté elle est encore euh, à ci ndax suñu ay mbokk yu bari ñu ngi ci biir kaso ba tey seront pas ma am nag kenn ki xam ne bëggoon naa tey wax ci moom ci jotaay bi muy Bassirou Diomaye Faye. a ma leen di jottali ay nuyoom ak ay ñaanam nit ku digne ku intègre ku rigoureux màggalu yàlla yàlla bu mu waa Sénégal yàlla bu mu rëcc waa réew mi may fàttali si jotaay bii nag ñu ngi koy teg injustice fële ca Cap Manuel ñu ngi ko teree woote depuis des semaine amul droit à des appels téléphoniques teguñu ko ci lu may pour bañ mu woote la mission ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci wàllu te ki def loolu mooy directeur Cap Manuel il faut la dénoncer ne il a des des versions ak des positions politiques et politiciennes jël na décision bi nga xam ne administration sant ko ko gis na ni Diomaye ngi woote ay candidats ak ay anciens candidats ñu ngi ñëw di ko seet si di ko féddali seen cofeel di rejoindre sa coalition ñu corser ses visites corser ses appels et lii c'est injuste injustice bi xam ne on tient à le dénoncer ici du yoon di leen jaajëfal nag te di leen nuyu leen wax ni combat bi continuer commencé gum sax ndax ki ñu ko séqal muy waajoo nekk foofee di nga mu jee ku dëgër bopp la te amul jom de du ay waxtaana fi jële naxante jële bi rek la xam xamul leneen nañu pare xeex ak moom biñ ko joxoon moomu ko dañ ko ko dénk liggéeyoon nañ ko te kontaan ci moom nañu delloo liñ ko déggoon wallaahi war na jël waa Sénégal tooñ na mère de famille tooñ na ndaw ñi tooñ na kilifa diine yi tooñ na askan wi man Macky fan lay mujjee lay laajte fan lay mujjee rëbës la war a dem rëbës la war la war a dem waaw waaw waaw bii la ngeen jëf.